dal leen a jàmm bés bi El Hadj Malick Sy Maodo génnee àdduna Serigne Aliou Gueye dani woon képp ku sëpp sa xalima ci daa di bind te bindoo ci loolu sa xalima sànku na sa daa naax saay na waaye yéeni kaay yi nu xëyandool tey dafa mel ni dañoo maase ni képp ku xëy bind tey te bindoo ci gàmmu gi di gane si àdduna ngën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam sa encre yàqu na say feuille naax saaya l'observateur boole ci dem ci bépp këru diine boo xam ne day dundal guddi gi yéeni kaay groupe Futurs Médias bi ne na ñaari at bi nu toogee gàmmu wuñu fi mu toll foo sànni mbàtt mu tàkk dëkk bi fees mosaliyen yi di jolle fépp ci boori jumaa ji journal rue 15 angle corniche bi ne noonee itam lañ koy màggale ca Medina Baye le soleil national ne ci gàttal daal fépp ci réew mi foo tàbbi rek gàmmu gi la ñuy dundal tey di wane dayo bi nga xam ne si ngeen gi mbindee fa alayhi salaatu wasalaam am na ko ci taarixul islam yéeni kaay réewum Sénégal boole ci ne gàmmu gi yamul Sénégal ndax fépp ci àdduna bi jullit yi ñoo ngi koy màggal direct news ne Sénégal daal Mouhamed alayhi salaatu wasalaam moom la ñu bëgg Tivaouane Ndiassane Thiénaba Yoff Medina Baye Léona Niassène Sénégal jàpp njaareem fu ci nekk ak na ngay màggale gane si àdduna ko ngën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam di guddik nabi Le Quotidien Tiwaawan moom ñaari at gannaaw yi ren du ko wóote ñoom ñëpp a teew ndax ne dañoo namoon gàmmu gi susu a dellusiwaat ci jaar-jaar yi El Hadji Malick Sy moom dafa international yéene kaay Ibrahima Niass diiney lislaam lawal na ko ci àdduna bi rawatina fépp ci déndu Afrique direct news ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul itam bu bésu gàmm bi masaane yegg ni mu ko daan màggale benn la benn bett moo nekk ci Sud Quotidien di gàmm gi journal bi ne Tiwaawan fees na taalibe yi ñëw na ñoom ñëpp maase ne dañoo namoon gàmm gi namoon itam di ko màggale fii nii ci Tiwaawan L'As Quotidien ne moo taxee te boori jumaa ja la ko wër zawiya maam Abdou Aziz Sy Dabakh zawiya El Hadji Malick Sy Maodo waaye itam zawiya Serigne dan fay ziyaare ba di fa fanaan di tuuri xeewal di naan amuñu sago ci Tiwaawan rawatina ci sëriñ Babacar Si radiyallahu taala anhum ndax cofeel bi nu am ci moom boroom bonekaare bi boroom xanaa shirro shirro di Mawlaana Cheikh al Ibrahima Niass ab xalifaam di Cheikh Mahi Niass ci Vox Populi li mu jàpp moo di jafe-jafe yi nga xam si moom la ñu bëri jàpp ne moom la réewum Sénégal di jànkoonteel jamono ji li muy wane moo di ne réew mi moo ngi ci yoonu yokkute maanaam ci voie développement Walf Quotidien Medina Baye kay dañoo déey njiitu réew mi réew meetu lu doy waar moo libération yéenekaay moo ko bind journal bi ne ca Jéyeen di dëkk bu nekk ca piir fa la xewee ay jaamaarloo yu am ca waa dëkk ba moo tax ba am ko fa ñàkk bakkanam Basiiru Mbay lay wuyoo dafa ñëwoon ngir tabax fa beneen juma imaam ba boroom dëkk ba ak waa dëkk ba lànk ne du ca dal loolee jural leen ay jaamaarloo fitna dal di fay juddu ba ni Basiiru Mbay mujjee ñàkk bakkanam yéenekaay bi fi mu toll ña fa gendarmerie teg loxo bari na waaye imaam ba ak boroom dëkk ba lañ ca joxoñ baaraama tuuma ba jamono ji procureur bu Thiès li muy sàkk moo di ñu ubbi ci ñoom ab information judiciaire NCA Assurance, TDST Touba Darou Salam Karo Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi jaajëf Serigne Saliou Seck mbokku jaa ngeen xibaar yi buur na gën jaf ca fas jamonoy ñaan ak euh, jaamu yàlla ca ñaari gox yu sell Tivaouane ak Medina Baye dina màggal guddi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, gàmmu Tivaouane nag di ñëwaat ren ñaari gannaaw yu mu amul ndax mbas mi bëri na taalibe yu jóge fu ne ngir dem fekkee xew yi ci nag jamono ji nga xam ne mooy jamonoy ñaan ak fàttaliku ñu nag war a waxtaane foofee maanaam diggante nit ak nit lu dul kàdduy jàmm bi mu fa jëp ñëw nag jamono joo xam ne crise am na ci valeur yi mu ëpp nag di la ñu waxtaane ci débat foofee imaam Mactar Ndiaye yor jokkoo bi ci kuréel bu boole imaam ak ulimaat fi ci Sénégal nag ñëwaat na ci sensu gàmmu dégg nga ci biir xibaar ba nag muy oo kuréel daal foo nekkee nga daal di soppi doxalin université Cheikh Ndakaaru ubbi campus social la ko tàmbalee ëllëg léegi nag daanaka yemb na di ay xibaar yu jóge ci ay responsable yu Yewwi Askan Wi ña nga woon ci euh, Serigne si Sy Dabakh ca Tivaouane moom moo leen dalal coalition bu opposition bi nag euh, dem na euh, foofee ca Tivaouane ngir daal xool yëf na la fa tëdd waaye tamit bañ leen oowee wala euh, jëm nañu àdduna ci li nga xam ne mooy amnistie bi nga xam dañ ko bëgg amal kii di Khalifa Babacar Sy porte-parole bu Yewwi Askan Wi di Déthié Fall ne dina ci àddu rek say jot ñu déglu ko ak Amadou Sabax Ba. dañu ñëwoon tey délégation Yewwi Askan Wi nga xam ni président Khalifa Ababacar Sall moo ko jiite ñu ànd si ak le président Ousmane Sonko ak le président Cheikh Tidiane Dièye ak la lionne du Bawol la présidente Aïda Mbodj ak euh, député yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii. ci département de Tivaouane ak aussi maire yi nga xam ni ñoo fi nekk ñoom ñëpp jóge ci Yewwi Askan Wi ñu ñëwoon indi suñu ziar kenn umpalewul gàmmu gi li mu doon ci communauté musulmane te bu gàmmu ñëwee xel yëpp dañuy daj Tivaouane moo tax ñu yegg si fii bi ñu yegg see nag gis na nañu sunu sëriñ sëriñ euh, Abdou gis nañu également sunu sëriñ sëriñ Maodo si ñoom ñëpp ñu teeru ñu teral ñu ñoom ñëpp tamit ñëw wax ak ñun fàtteluñu li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñun fàttelu également li nga xam ni moom la bëgg muy réew jàmm daje nag ñi nga xam ni jàmm rek moo leen tax a jóg muy coalition Yewwi Askan Wi xam nga dangeen ñuy may lenn bu ñu ñëwee ci bis yu ñu mel nga xam ni bisu diine la adduna bi taxaw di ñu déglu ñëpp may nopp Sénégal ndax ñu fi yàlla wàcce ci nit ñu baax nitu diine bu ñu ñëwee ci bis bu ñu mel da ngeen ñuy may suñuy déclaration ñu yemale ci loolu encore une fois yàlla na jàmm yàgg Sénégal yàlla na sunu mag yu baax yi sunu sëriñ yu baax yi ñu fekk si tey yàlla na sunu borom kattanal leen dëgëral leen dolli ci ñoom wér dolli ci ñoom gudd fan ba seen mission nga xam ni dafa dépassé tey Sénégal ñu koy xaar biir àdduna ba seen mission boobu ñu mën koy yeggale ak sago gàmmu naka noonu la amee ca Kaolack rawatina ca Medina bàyyi maire bu Kaolack de Serigne Mboup di woo askan wi nag fex. dal leen jàmm ci xabaaru tàggat yaram yi dañ kaa doore a lu jëm si tournoi UFOA bi Sénégal daal di nañ si qualifié ci final daal di qualifié wala jëm ci coupe d' Afrique bi ñu jagleel U17 yi ndax ci àjjuma ji dañu daal rek daan équipe bu Sierra Leone bi ci série tiro bi juróom benn bal si eh, juróom ba temps bi jeex dañoo tëwa woon kenn dugutoon dara ci sa kangi moroom. nu waxtaane football bi ca France ak fukkeel bi journée championnat foofu Marseille mooy jonganteeg waa Ajaccio ci diggu bëccëg bu timis jotee Paris mooy fekki waa Reims. si wàllub euh, football googule ba léegi jàppale nag ni ca euh, réew mi di bupp euh, Angleterre Manchester City mooy jongante waa Southampton Leicester dafa dem fekki waa Bournemouth Chelsea bu Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly ñoom dañoo yeen teg waa Wolverhampton équipe bu Brentford moom dafa jongante ak Newcastle Tottenham ci ngoon si jëndalaale ak équipe bi di Brighton ca réewum Espagne Real 19h dina laale ak waa Retafe Athletic Bilbao laaleeg waa Séville Atlético Madrid jongante ak waa Gérone Rayo Vallecano moom dafa joué ak waa Almeria nu jëm si waa Allemagne yi juróom-ñeenteel bi journée championnat ba nu ni Bayern Leverkusen Schalke nun fiir Leipzig ak Mayence ñoo de jongante Bochum ak waa Francfort ñii di waa Bayern de Munich ñu nga fekki waa Borussia Dortmund. ca réewum Italie moom jàppale ni Inter ak saw ñoo di joŋante AC Milan moo di dajeel ak waa Juventus. Bologne laale ak waa Sampdoria de Gênes nu waxtaanee wàllu basketball mu jëm si euh, lii di demi lup euh, coupe de la ligue si jigéen ñi nu ni si aser ji débalok moo de jongante ak waa AS Ville de Dakar bu ñu noppee góor yi ñoo leen di wutu ci parke ba ñoom dañoo jongante mu jëm si demi-finale coupe du maire nu ni programme ga Duc moo ca laale ak waa AS Ville de Dakar ba léegi jeexal ak wàllub euh, dawalum welo am na genn Sénégalais nu ngi kaa mu xëm Amadou Bamba Ndiaye moom fukki fan ak juróom-ñaar ci weer satumbar weesu la baaw ko France jëm Sénégal ab welo la war na mu ba fii la mu si jublu mooy ne fexeendi ba jël sport boobee muy dawal welo ngir yee ci askan wi ci njëm ci moytandiku ak bàyyi loolee di wàllu immigration clandestine bi maanaam mbëkk mi mu Mouhamadou Bamba Ndiaye jokkoo na ci téléphone ca tugal ga mu ne jëm si réew mii Sénégal ak Abdourahmane Diallo. fi mu toll maa ngi Espagne. départ naa Paris depuis le 17 septembre. donc li waral li ñu mel euh, ñetti mbir la rek. mooy d'abord bu ci njëkk pour immigration clandestine bi. def benn documentaire. ñaareel bi mooy euh, conscientisation jeunes africains yi mooy maanaam daal yee xale yi. ñetteel bi mooy climat. climat écologique. loolu mooy ñetti mbir yi nga xamante ni ñoo waral ma jóge Paris ñëw Dakar pour vélo. ban message nga ci bëgg a lancer. man objectif ma ci am mooy wan leen ne jël gaz bi du solution loolu mooy sama objectif numéro un. te message bi ma bëgg a lancer mooy wane li nga xamante nii moom def nañ ko ba pare xam nga sama objectif nekkul ñi nekk fi ñi nekk fi ñëw nañ ba pare sama objectif mooy wan ñi nekk Sénégal nga xam ne dañoo envisagé wala dañoo nar a jël gaal yi pour ñëw wan leen ne gaal yi di solution loolu moo tax waral aussi interview yi yeeg li may def ñun yëpp ma di ko def. lan moo waral nga tànn vélo ñu xam ni oto ak moto bu doon yoon bi rek nga bëggoon a jël mun nga koo jël. xam nga vélo bi boo gisee ma tànn ko mooy tey jii nii foo dem ci àdduna bi dañ lay wax waxu réchauffement climatique écologie amul lu gën a significatif vélo c'est-à-dire force tànk dong moo yóbbu vélo bi amoo benn gaz effet de serre booy booy sànni ci jaww ji nga xamante ni day bay day law gàncax geeg nit ñi donc ñun aussi africains yi damaa yaakaar ne euh, waratuñoo toog di xool ñeneen ñi donc yaakaar ne écologie concerné wul ñaata fan nga fas yéene def ci yoon bi bés bu nekk rek war naa def lu mu gàtt gàtt téeméeri kilomètre ak fukk wala ñaar fukk donc buñ ko xaymaa bu octobre bi jeexee laay yegg Sénégal bu ci yàlla àndee jàngeen jëf loola kon mooy la gënoon a fës ci xabaar yi jàngeen jëf ne yenn jàmm